muy le 17 avril nga xam ni ak bu jot ci waxtu wii lay wootee cant gi moom du jóg ci cant ndax def na sant Serigne Saliou muy diineem waaye gii day goo xam ni day marqué saa su ne daje mbaag Serigne Saliou Fataset ci région région de Thiès tey nag muy 73e édition bi ñu defee ko nii mu ko daan defee mu mel ni tey ma nga fa kaw doom di sant Serigne Saliou woote cant gi foofee waaye doon teew gi mu nekk foofu teewul it mi ngi fii suñu biir ci biir këram bu tedd gii di Madina Salaam ndax kat ñu ngi fi ak suñu universel soxna Aïda Saliou mii nga xam ne da koo def jëmi boppam ne ko yaay man maay yow jàpp ci yow muy dëgg-dëgg jàpp ci man képp ku ko def dina a noppal tey jii ak ëllëg ñu jëm kon nekk fee teewul mu nekk fii mu ngi fépp mooy Serigne Touba. ñu ngi santaat bu baax ci nii yëf yi demee ndax kat waxtu bii fii la ñu daan fekk ñuy dégg kàddu yu tedd ya mu koy jooyal Serigne Saliou ci nii mu ko def ci kanamu àddina def ko ko mu ànd ak moom 73 ans de compagnonnage ba mu xëy may ko jëmmi boppam ci te Serigne Saliou kat ku ne Serigne Saliou ne Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ne li xaadatil u jóor wal masaalihu bi te tey wal jës bii way nii Serigne Saliou di wax ni moom mooy Serigne Saliou kon ba Serigne Saliou jox la jëmmi boppam jii di Serigne Touba kooku am nga ndam woo jar naa woote di sant saa su ne moo ñu dajale fii tey jii cant gii mu amee Serigne Saliou ndax kat taset la woon am le 17 avril 1946 ñu nekkaat fi tey di ñaan mu di ko def ay déwén ay ati ati at at ñu yàgg koo ànd ak moom sax ci ak taalube ñu koy santale Serigne Saliou bu baax lott nañu ci waaye cant gi dayoo ga mu mën a am moom rek ko mën a jox ba tax ñu ngi santaat bu baax suñu teew fii université Soxna Aïda ñu ngi sant bu baax yow ci nii nga ñu uufee uuf mbokk taalibe yi ndax kat sëriñ bi dalaa jiital suñ kanam muy lu ñu neex lool waaye nii nga ko doxalee kat santaat nañu moom na mu daan mel melaat na ni tànk kanam sëriñ Tuubaa yi feeñ na ci ba tax ñu ngi ci sant bu baax xéewal yi dara manqué wu nag yi xar yi giléem yi ginaar yi lépp loo xalaat rek luy jëm ci bernde ndax cant kat bernde la sëriñ Saliou wax nee na ren togg say ñam yu neex te bari di ko séddale te doo ci am xëcc ak seen moom ñëpp am nañu barki Serigne Touba ku ñëw di nga lekk lii ñu fiy servir ci subaa léegi wax dëgg yàlla mën naa def ay fani fani fan ñu koy xéwaloo te du jeex santaat nañu ci sa taxawaay bii lépp rafet na sant nañu ñun ay taalibe lañu te sëñ Bàcco lañ gëm te moom la ñu fas yéenee àndal faw ndax dimbali nañu ci ci dimbalam waaye kat lu neex Serigne Bàcco ci loolee la ñuy ne te lii moo ko neex sëñ Bàcco daa bëgg maanaam yoonam wii moom ñu dooni taalibe te moom lañ fas yéenee doon faw barki Serigne Touba santaat nañu ci nii ñu ko àndewee sant nañu de saa su ne moom yaa ñuy woo yaa ñuy wax li li li li ñuy def yëpp maanaam dara umpuñu ci yëf yi waaw te nii rek la Serigne Bacca bëgg sant nañu barki Serigne Touba Serigne Bacca daa jiital waaye lii waykat bi wax léegi ba nga doon lay suuf këram sa nekkate boobee dalay may lay boobaat léegi tokki woo jëf joo jëf ñu ni guléet te loolu sëriñ bi la ndimbalam la dalaa waajal ca waajtaay yu njëkk yi moo tax tey jii lii mënutoon a ñàkk waaw kon lii lii loolu rek la demee sëriñ Tuubaa di ree saa su ne li mu naan sama tey june day gàccaal sama déw te yoon bi su noppee yees yees yeesalu Serigne Badio bii nag daa fës lool yokkute yi ñu ngi koy yëg ñu ngi sant ñu ngi yokk barki Serigne Touba ñu ngi yokk ci fànn yëpp ñu ngi gën a yees ñu ngi gën a xam ki ñu àndal ndax mëneesul xam lépp ci moom ndax Serigne Saliou mooy suñu borom mëneesu koo xam waaye nag des na ci xam saa suñu xëyee mi ngi ñu yokk ci ndimbalam saa bu ñu xëyee mi ngi ñu yokk ci fànn yëpp mi ngi ñu yokk si suñu xéewal mi ngi ñu yokk si suñu wér mi ngi ñu yokk si suñu mucc dàmbe na fépp sant nañu ko ñu ngi koy ñaanal daal jëmmam ji ah sëñ Bacco yàgg fi te wér sant nañ lu wér ñëpp a ngi sant xol yi sedd na dëgg nañu sant nañu la yàlla na nga fi yàgg te wér muy soxna Mboose ak soxna Aïcha te ni ko sànq diwlin mbay waxee dañoo jiitu ci kër yi boobaan léegi ñu ànd ak ñun uuf ñu waaw defuñu ñu ay moroomi soxna ay doom lañ ñu def uuf ñu ànd ak ñun te boobaan léegi mbokk taalibe yi ñëpp mën a seere seen taxawaay ci wetu sëriñ bi ku ñëw danañ ànd ak yow danañ dox ak yow doxandu bi ndax fii loolu rek dafay jëriñe loolu moo fi am te ñoom la àndee ak ñun santaat nañu ci taxawaay bi